mbokk yi jërëjëf dal leen jàmm ci télévision Futur Média defe naa li ñu dugal noonu junj na li nga xam ne nii moom la ñu bëgg waxtaanee ci suñu jotaayu tay bi di fàttaliku 23 juin 2011 juróom-ñeenti at booba ba léegi dinañ ñëw léegi ci li xewoon ci 23 juin bi sama gan yi dinañ ma may ma njëkk a nuyu wax diaspora bi parce que aussi dañuy faral di doon ñoo xam ne lu xew seen réew dañuy sot di ci bokk. donte du ñu nekk fii ni ko woykat bi waxee woon picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf ñu bëri bi ñu gisee suñu bakk émission dañoo yëkkati seen xadar le 23 juin sans ñun parce que am na lu ñu ci def xëy na acteurs yi mën nañ leen ko nangul parce que bu ñu ciy nekk di xeex léeg-léeg ñu wër àdduna bi fu sénégalais yi nekk ñu fekk leen fa te am na ci capital européenne occidentale yu bari yoo xam ne 23 juin bi nit ñi taxawee fii. ci yeneen capitale yi sénégalais yi mobilisé wu nañu foofu tamit bokkoon ci xeex bi kon ñu leen ciy nuyu di leen jox seen wàccuwaay ñoom tamit comme ni ñu koy waxee 23 juin 2011 acteur direct yi nga xam ne nii ci li tax ñuy waxtaane tey boo ci jëlee président Abdoulaye Wade bi jiite woon réew mi da nga ciy teg premier ministre jamono jooju di Souleymane Ndéné Ndiaye ak ministre de la garde des Sceaux ministre de la justice Cheikh Tidiane si bi doon défendre projet de réforme constitutionnelle bi ci assemblée nationale jóge fa teg ci ministre de l'intérieur ci jamono jooju Ousmane Ngom ñi nga xam ne nii ñooy ay député te amoon ci wàll maître Abdoulaye baabu di commission président commission des lois bu assemblée nationale bokkee woon fare woon ak nguur gi ak it président groupe parlementaire bu PDS ak ñi mu àndal Doudou ñooñu xëy na ñooy acteur direct yi ci li nga xam ne nii moo xewoon ba mu mujjee ni mu mujjee ñu tax ñu koy waxtaanee waaye nag dafa fekk am ñu taxaw jàkkaarloog ñoom ne la ñu bëggoon du fi am réforme constitutionnelle boobu xëy na dañ koy wax ni rek di jàll mais baax na ñu fàttaliwaat ko article 33 bu constitution bi la woon président Abdoulaye Wade bëggoon ci ñaari mbir ñu soppi ko ñuy fal président ak ka muy àndal. ticket la ñu ko doon tuddee ñu bëri yaakaaroon ni porox ndol la bu mu doon wut falandoo ak doomam ñu tuddoon ko dévolution monarchique du pouvoir ñaareel ba ñu ne léegi bu ñu demee ci wote bi comme majorité mooy tax nit falu premier tour bu majorité amul balaa ñuy dem deuxième tour nañu xool ndax ci candidat yi amul ku ci am vingt cinq pour cent bu ko amee rek daanaka dana falu bu boobaa soxlaatul deuxième tour ñaar yi la ñu tegoon ci assemblée nationale ku jéegi jàpp ni waru fee am ñu ko doon xeex acteur indirect yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo nag ñoom dama ciy beral nuyoo ñi nga xam ne nii ñoo nekk ak ñun parce que yey nañu ci bokk ci waxtaan wi pour gindi ñu ci kenn du na taxawaayu député bu nekkoon ci assemblée nationale ci onzième législature boobu maître El jouf maa ngi lay nuyu di la dalal dalal jàmm. ñëw wuy si la ci invitation bi ci bis bi nga xam ni pour man mooy deuxième indépendance bu Sénégal muy le 23 juin ñu taxawoon bëgg a noot askan bi daaneel démocratie falu falaale ki la neex 25 pour cent yomb na am ci président sortant loolu mooy suppression élimination second tour. Mm-hmm. mooy président bi mu nekk wóor na ko ni moom lu mu bon bon dina am 30. Mm-hmm. kon nag dañoo buggoon a nax. te nag mu nekk ndam lu rëy boo xam ni dañoo wañ loxo gouvernement mu tiit jaaxle ci biir débat yi mu tàng jër dëkk bi tàkk Cheikh Tidiane Sy Mamadou Seck président Mamadou Seck maa ngi koy nuyu sama xarit maître Ablaye Wade waxtaan seen biir xam ni ah Sénégal bañ na. balaa tàkkusaan Sénégal bañ na. balaa tàkkusaan effectivement président Abdoulaye maître dama doon nuyoo rek. ah nga di nuyu Sénégal yëpp nag ci wër. Euh, lu confinement bi moom nu mu demee noonu. waaw ñaar la. Uh-huh. confinement dama respect sama réew. Mm-hmm. dañu décréter ay mesures. Mm-hmm. président Macky Sall wax médecins yi wax. man nag bu ma nekkee républicain. Mm-hmm. ah par civisme. war naa et pour ma santé. ma toog lëlu. ku lelu nag di moytu doo dem di watu ci mm-hmm. un deuxièmement dafa nekk signe de sagesse dafa am beneen El Hadj Diouf <laughs> laaj réew mi war a positionné wu nag pour nekk président du Sénégal te defe naa ne am na noo war a mel ah. ñu war la yaakaar xam ni kilifa nga nooy mel pour ëmb nekk papay Sénégal yëpp mm-hmm. te loolu am na noo war maître sa naata sa naatango bi nga jàkkaar lool 23 juin defe naa boole na leen ngeen àndoon ci déggoo waaye fi nga dugg léegi def naa boo fa duggee du ngeen déggoo ci booy wut baatu réew mi waaye loolu dinañ ci ñëw ci kanam monsieur le ministre mambay Mbaye maa ngi lay nuyu euh, bi may wax sànq baax na ma préciser ko mm-hmm. jamono jooju danaka euh, ndaw yi APR ñi ànd ak Macky Sall yaa leen jiite euh, am na lu bari loo xam ne nii wax nañu ko ci langaamu ci gri yooyu yaa ngi ci woon au cœur moo tax aussi ma nangul leen ni yey ngeen ci wax ci 23 juin bi ma mbay Niang ministre chef de cabinet président de la République dalal jàmm merci jërëjëf Abdoulaye maa ngi nuyu sama nijaay sama xarit sama xaritu papa tamit euh, maître El Hadj di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di nuyu suñu xarit yi ñu àndaloon ci 23 juin jàll moo dogal nga invité mais jàpp naa ni am na ñu ma gën a yey sax ñëw toog fii parce que am na ñu ci bàyyi bakkan ci xeex boobu am na ñu ci am ay jafe-jafe yu bari xëy na tey man maa nekk fii ci plateau bi mais du ma du ma gore bu fekkee ni que rek damay commencer rek jël sama bopp ni maa jiite woon ci parti la bokkoon ànd ceeg ndaw yu taxaw ndaw yu am gëm-gëm ndaw yu gëm li ñuy def ñu boole kujje gi mu am ci tamit ndaw yu taxaw yu am pas-pas su ma rappel ki jiite sa ndawu parti taxawoon na ci jiite woon ndaw hmm. parti maître El hmm. taxawoon na ci donc mu doon loo xam ni ay ndaw dajaloo def ko ginnaaw bu ma sante man ñi ma bokkal parti am na ci ñeneen ñaar ñoo xam ni xëy na tey kenn ki bokkuñu gis-gis bokkuñu fuñ jëm bokk luñ doxalin mais dama koy nangul taxawaayam hmm. muy Barthélémy Dias keneen ki xëy na déggatuñ ko sax ci politique xaw ma ndax am na ñu ko xam xaw ma xamuñu ko mais dama koy nangul taxawaayam parce que nit ñi tey ñi ngi wax 23 juin mais Barthélemy ak Mbaye Jonn dañ daan daje sama kër avant le 23 juin di xool lii nii nan lañ ko fiy jëlee. mbay Jonn bu AFP maire Mbaye Jonn bu AFP. Mhm. mënuma leen bañal loolu. di secrétaire général association de maires du Sénégal d'ailleurs effectivement dañ daan toog du ñu nelaw du ñu toog du ñu guddi du ñu bëccëg daan ni ku nekk wàll wa nga nekk dénk nañ la lii def ko 23 juin commencé wul 23 juin 23 juin le 19 juin la commencé Mbaye Dione dina ko confirmer Barthélemy dina ko confirmer ñi jiite woon parti yi dinañ ko confirmer 23 juin point de départ bi le 19 rond point Sandaga la ñu ni lii bu jàllee mooy ñun amuñu taxawaay ci suñu wàllu parti. parce que tamit fa la tàmbalee ci stratégie bi la woon parce que rassemblement yi quand ci manifestation bésu bésu penc bi la woon ci penc mi. déedéet rassemblement yi. Mhm. mi ngi commencé rond point Sandaga xoolee police dina la ko wax. Barthélemy dina ko confirmer xëy na dina ni waa ji warul woon wax yi nii mais ku ci nekk danga nga koy delloo a parce que tey ku ci nekk bëgg nga wone loo ci xam te defoo ko sa moroom def ko nangul ko ko. mais ñu fàttali quand même c'est très important ñu koy wax. Uh-huh. Euh, parce que ni ngay waxee ci euh, Sandaga la ñu rassemblé woo. Uh-huh. ñu fàttali nii rassemblement yooyu keroog président de la daf ko autorisé. déedéet si manifestation yi c'était autorisé. non non le 23 juin manifestation 23 juin yi c'était autorisé. man dama lay wax. nga xam peut-être xëy na sax li may wax. Mhm. mën nañ jàpp ni que mën naa ko bañ a wax mais wax dëgg rek pour nit ñi xam. Mhm. pour que ñu bañ a jël jëfi jàmburu aakimoo ko parce que loolu commencé na yàq réew mi. rond point Sandaga bi ñuy tas manifestation bi. Mbaye Jonn dafa jóge 16h fa mu jóge Barthélemy jóge 16h fa mu jóge man ma jóge 16h fa ñu jóge ñu dajale ay jeunes parti du woon suñu parti yi rek ñëpp ñu ni rassemblement spontané ñu dem ñu tas ko c'était pas autorisé loolu conditionnement lu tuddoon. Euh, je pense quand même pour l'histoire manifestation juin yi quand même c'était mmh. autorisé le 23 euh, voilà. juin. oui hmm. ci buntu bi. Hmm. c'était autorisé ñu xaaj ko ñaar. daal wàll wi waa wàll wi opposition bi xëy na kay waa opposition bi dañoo dem ba waa yi néew ba gis ni que lii sax mënatul nekk ñu dem réew mi yëpp ball si nag ant foofu mënuñu ko wax te duñ delloo njukkal étudiants yi ki ma ci xamoon ki leen jiite woon ñun ci suñu parti Thérèse Faye lu tuddoon hmm. Marie Hélène ak ki nekk directeur u Pape Malick Ndour des dizaines et des dizaines de milliers d'étudiants jóge université di dox di ñëw yamul woon foofu waa Pikine yi y a des gens il faut que ñu reconnaître leen loolu man sama parti laa xam Pam Ndong Biram fay c'est-à-dire engagé comme yeneen parti yëpp hmm. donc mënuñu jàpp ni que tey xëy na ma sama maître El Hadj Diouf dina d'accord ak man c'était pas la société civile ak Y'en a marre comme ni ko ñu ñu foogee est-ce que est-ce que foofu justement maître est-ce que du jonction bi nga xam ne am na ba politique yi ak société civile ak syndicat yi organisation yi ànd moo dew leen bés boobu est-ce que politique yi rek mun nañ koo aakimoo ci ne ci seen barke la ci bu yëf yi sottee bës boobu bëgg a bàyyi sama eh, sama doom yegg. jox na la lenga yi hmm. jox na la ko mu développé. après man man ma man ma mbay. waaw merci euh, beaucoup ma fàttali ni bon euh, am nañ fi société civile. waaw mm, coordonnateur mouvement M23 Alioune Tine am na ngant mu ngi ci yoon wi bu ñu dabee ci waxtaan wi dana dugg voilà hmm. dama ko doon préciser. sama nijaay li muy wax nii ñoom ñoo gënoon na xëy na li may wax nii sax moom am na lu mu ci xam loo xam ni xëy na dina ko wax wala am na loo xam ni du ko wax. mais li am dana wax lépp tey. waaw mais li am. Hmm. mooy est que man ci li ma jàpp société civile ñoom ñii ñoo leen ci dugal ñu mel ni moom. politique yi wala. ñu mel ni tonton El Hadj Diouf. ak politique yi ñoo ci dugal société civile. parce que boobu ku fàttaliku boobu man Mbaye Dione Barthélemy ak ñeneen man ak ñoom biram candidature Macky lañ doon wax Barthélemy ak euh, ñi mu àndal ay ñoom Youssou Mbow candidature yàlla na ko yàlla yërëm ndem si yàlla. Tanor euh, Tanor lañ doon wax euh, Mbaye Dione